amal nañ seen fukk ak ñaareelu ndaje boo xam ne amal nañ ko si nga xam ne moo di at mi seen ndaje moom daal bokk na si li nga xam ne moom lañ ci tënk pour rek daal Gambie a si xam ne moo di mbootaay bi ñu xamee si International Hydrographic Organisation dinañ ko yaatal si xibaar yi Ministry of Basic and Secondary Education di bunta bi xam ne ñoom lañ dénk wàllu njàng mu suufe mi ak njàng mu déggu doom bi ñoom it nag daal delloo nañ njukkal si li nga xam ne moo di daal ay jàngalekat yoo xam ne dañ leen nag daal di sargaloon si daal ab nag xew-xew boo xam ne kuréel gi Foundation amaloon nañ ko ñoom ministre bi tamit daal di jagleel ab sargal li nga xam ne moo di jàngalekat yooyu dinañ ko yaatal si biir xibaar yi kër gi ñu xamee si di National Food Security Processing and Marketing euh, Corporation ñu xamee leen si si di kër gi nga xam ne ñoom la nguur gi sas ñu jën gerte li nga xam ne moo di béykat yi ñoom nag daal ñoo lëkkalu ak mbootaay bi ñu xamee si Gambia Farmers Union keroog ajum amal ab ndaje boo xam daal dañ doon waxtaanee lu aju nag si rek wàllu li nga xam ne moo di daal euh, jafe-jafe ak li nga xam ne moo di yokkate yi nga xam ne am na si li nga xam ne moo di nawetu li nga xam ne moo di ren gi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yii ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal

lundi la juróom ñetti fan yi si weeru avril atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar fukkay ak ñeneent ñu rek daal di leen indil seen jotaay bii direk rek daal jotaayu xibaar Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal xibaar yi njiit réew mi président Adama Barrow moom ak ay jëwrinam amal nañ seen ab ndaje boo xam ne bi lay fukk ak ñaareelu yoon ñu di ko amal si li nga xam ne moo di daal at mi te rek keroog alxames lañ ko nag daal di amal si rek daal màkkaani ki nga xam ne moo daal njiit réew mi seen nag daal ndaje bu nag bu mujj bi ñoom ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi daal dinañ nag tënk ne daal li nga xam ne moo di daal Gambie fi mu nekk daal ñoom nguur gi daal dinañ nag li nga xam di réew Gambie bokk xam ne moo di mbootaay biñ xamee ci te nag lii nag ñu ngi ko tënk ci seen fukk ak ñaareelu li nga xam ne moo di ndaje boo xam ne ñoom ñi ngànk réew mi nag ñu ko doon amal lii nag daal ki nga xam ne sax daal moo ko sabab lu woon pour daal nguur gi daal di ko dak daal joxe seen ab waaw mooy ki ñu xamee ci Ibrahima Silla di Minister of Transport Work and Infrastructure moom na daal moo sàkk woon li nga xam ne moo di mbir mi ba tax na daal seen nag ndaje bu mujjee bi ñoom nguur gi nag daal joxe nañ ci seen nag daal app nag waaw moom ki nga xam ne moo di information ministre docteur Ismail Cissé moom bi nga xamee si li xam ne moo di daal mbir mi wane li nga la boo xam ne bu si réewu Gambie nag daal bokkee nag dina amal nag njëriñ li nga xam ne moo di daal réew mi si nag daal ay nag wàlla nag daal yu bare bari bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom moo di mbootaay bi ñu xamee si international Geographic Organisation ab mbootaay la boo xam ne ñu sos wala ñu ngi si atum lu rek tollu si rek daal juróom-ñeneen fukk ak juróom-ñeneen xam ne moo ay nag daal réew ñoo si li daal beneen ab daal yéene boo xam ne ñoom nguur gi nag daal waxtaanee woon nañ ko si seen nag ndaje moomu si rek daal ab daal uh, bugg a bugg a boo xam ne ki ñu xamee si minister of communication and digital economy honorable Ousmane Ba moom it nag daal bëggoon na uh, daal ñu territorial transmission wala DTT loolu nag daal wax nañ ne bi nga xamee daal moom sàkku woon nañu nag daal waxtaanee li nga xam ne moo di mbir moom li nga xam ne moo di daal ab nag daal euh, càkku teefam nag daanaka nag daal euh, li nga xam ne moo di waxtaan bi nga xam ne moom lañ mujj amal nag daal mujjewuñoo ndar képp li nga xam ne moo di daal ab càkku teefam si beneen li nga xam ne moo di xibaar Ministry of Basic and Secondary Education di bunta bi nga xam ne ñoom nag daal mu déggu doom bi ñoom nag delloo nañ nga xam ne moo di daal ay euh, jàngalekat yoo xam ne nag daal dañ leen nag daal euh, sargaloon mbootaay bi ñu xamee si rek daal Nami Foundation euh, ñoo leen nag daal sargaloon nag daal loolu waral ñoom tamit ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu njàng mu suufe meeg njàng mu déggu doom bi ñoom it nag daal ñu nag daal jël seen nag daal ab matuwaay daal di daal sargalaat li nga xam ne moo di daal jàngalekat yooyu noonu na si rek daal ndaje bi nga xam ne ñu ngi doon nag daal sargal jàngalekat yu nag daal jox leen xam ne moo di xeetu jumtuwaay yu ñu xamee si rek daal laptops pour daal yombala leen seen wàllub njàng si ndaje nag daal dina wax nag daal li nga xam ne eh, eh, society wala penc nga xam ne wax na daal képp koo xam daal doon nga fi dara jaar nga si rek loxo nga xam ne daal ab nag daal jàngalekat ba tax na wax na ne moom nag dina def kéem tolluwaay kattanam pour daal gën a dooleel jàppale ñi ñooy daal jàngalekat yi surtout daal seen nag wàllu yokka seen i nag daal xam-xam wala sa daal fexe dimbali leen si li nga xam ay jumtuwaay yombal seen ab liggéey euh, docteur Ibrahima Sissao permanent secretary ministry of basic and secondary education moom daal dina xamal ñi nga xam ne ñoom euh, daal neexal yooyu ne daal amaana neexal yooyu nag dina tax na daal ñu a nag tax nag daal yeneen seen ay morom yi tamit nag daal ñoom it nag ci góorgóorlu euh, bu baax a baax ko defee nag ñoom ñu mun leen a sargal Alpha Ba nga xam ne moom moo fa teewaloon euh, ki nga xam ne moo di président bu Gambia Press Union moom mi nag daal dina wax euh, na yaakaar ne ñi nga xam ne ñoom lañ sargal delloo leen li nga xam ne mu daal njukkal amaana lii nag dina tax nag daal ñu gën a am cawarte seen wàllub li nga xam ne moo di yëngu-yëngu moom Mr Ba nag mu nag daal di wax ne li nga xam ne moo aju si wàllub nag njàngale nag daal lu am solo te nag ñi nga xam ne ñoo koy def nag daal dañ leen war di sargal yu nekk Mohamed Moustapha nga xam ne moom bokk na ñi nga xam ne ñoom lañ sargal si li nga xam ne moo di bés boobu delloo nañ njukkal eh, ñi nga xam ne ñoo di ay kilifa waaye nag daal wax na si turi li nga xam ne moo di ay naataango mi nga xam ne ñoom lañ sargal ne daal jumtuwaay yooyu ñu xamee si laptop si nga xam ne moom lañ leen jox dina la yombalal seen wàllub nag daal liggéey maanaam seen njàng ak jàngale dina ko nag daal yombal eh, bu baax a bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar li nga xam ne moo di kër gi ñu xamee si di National Food Security processing and marketing corporation ñu xamee woon leen si si di kër gi nga xam ne ñoom lañ sas pour daal ñu jënd gerte béykat yi ñoom nag daal ñoo lëkkaloo ak mbootaay bi xam ne si Gambia Farmers Union keroog ajuma ànd nag am ndaje boo xam ne li sabab ndaje mi nag mooy nag waxtaan li nga xam ne moo aju moo aju si rek wàllu jafe ak njëm kanam yi nga xam ne euh, nemmeeku nañ ko si li nga xam ne moo di daal nawet gi nga xam ne moom lañ nag daal di euh, génni am nag ndaje la boo xam ne daanaka ñëpp ñoo xam ne seen nag loxo laal na si rek wàllu mbay surtout nag daal mbayam gerte daje woon ci li nga xam ne moo du daal ndaje moomu si ndaje mi moo di kër gi ñu xamee si National Food euh, moom la taxaw li nga xam ne moo di daal béykat Alaaji Cissé vice président bu Gambia Farmers Union daal dina sàkku si li nga xam ne moo di béykat ngelawaay nañ def seen kéem tolluwaay kattan nag daal bootu si li nga xam ne moo di gannaaw nag daal mbootaay bi gannaaw bi nga xam ne wax na ne loolu dafaa tax na daal bu fekkee ne nguur gi a a moo di daal nguur gi daal dina wane daal delloo na njukkal nguuri président Adama Barrow rek yombal bi xam ne moom la leen yombalal li nga xam ne moo daal engrais euh, dugub nga xam ne mu daan jar ñetti junne ak juróomi téeméer dem ba ñeneenti junne si koppari dalasi waaye nag wax na ne li nga xam ne moo di nguur gi yombal bi nga xam ne moom la leen yombal engrais tax na daal fi mu nekk daal saaku dugub nag wàññeeku na daanaka fi mu nekk daal mu ngi junne ak juróom-ñaari li nga xam dalasi mu ne daal bu si gën a seer daal ñaari junne lay jar uh, si koppari li nga xam ne moo di daal uh, dalasi mu nag daal di wax ne li nga xam ne moo di daal nguuri président ko mu ne daal mbir mi du mbiru politique waaye daal li nga xam ne moom la leen nguur gi diggoon nag daal jàppane daal def na ko def mooy nguur gi ne yokk seen loxo su ko defee nag daal lu ne moom bokk na si rek Gambia Farmers Union uh, daal dina delloo njukkal bu baax a li nga xam ne moo di daal béykat

nguur gi gën a yokk loxo taxaw li nga xam ne moo di daal baykat yi te nag daal niñ ko mën a defee daal war nañ koo defee noonu daal wax ne lu aju ci rek wàllu li nga xam ne moo di daal euh, engrais gi euh, daanaka nag daal li leen nguur gi diggoon euh, nag daal defal nañ leen ko waaye nag wax na ne faaw nag daal nguur gi gën a yokk li nga xam ne moo di seen nag loxo Mohamed Ndiaye managing director bu Gambia National Food Security Processing and Marketing Corporation moom nag daal dina wane naam li xam ne moom lañ nag daal di génn waaye nag wax ne daal jafe-jafe boo gis nag daal faaw nag daal ñu utal ko li nga xam ne moo di daal ab saafara daal lu moo waral moo sabax sa daal ñu amal li nga xam ne moo di daal ndaje mi pour daal waxtaanee li nga xam ne moo di jafe-jafe xam ne daal baykat yi nag daal jànkuwantel nañ ko ak sax ñoom ñi nga xam ne ñooy jënd gi li nga xam ne moom lañ jànkuwantel si daje boo xam ne keroog ajuma lañ ko nag daal di amal waxtaanee lépp loo xam ne dafa ci wàllu euh, jafe-jafe ak euh, jéem kanam yi nga xam ne nemmeeku nañ ko si rek nawet gi nga xam ne moom lañ génn si rek daal xibaar gu mujj gi gannaaw bi nga ay fan wala ay waxtu yu rek daal ñu war a màggal xam ne moo di Idul Fitri wala rek ñu gën koo miné si li xam ne moo di daal korité loolu nga xam ne daal eh, moo a daal bëri nit eh, di rek marché li nga xam ne moo di daal Serekunda bi mu fa demee nag daal daal dina eh, am ab laaj ak boo xam ne seexan na ko ak ñenn ñi nga xam ne ñoo di askan ñoo xam ne ñu ngi nag waajal li nga xam ne moo di rek daal bés gu màgg googu ñu xamee si xamee ko si Idul Fitri daal rek li ñu xamee si rek daal euh, korité ba tey nag ki ñu awa booy moom nag wax na ak télévision mag bi ñu xamee QTV moom nag euh, daal dina wane daal euh, naam nag ñu waajal li nga xam ne moo di daal korité bi ne daal mbir mi dak daal yombut bu ñu sukkandeko si li nga xam ne moo di kàddoom ne daal wanteer am na waaye dak terewut li nga xam ne moo di daal njëkk yi dafa seer lool bu ñu sukkandeko si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom ne daal ak lu mun am nag daal ñoom ñi nga xam ne ñoo koy waajal ñu ngi koy waajal bu baax a baax Salih nga xam ne moom it keneen la koo xam ne daf doon jënd foofu si rek rek daal marché euh, Serekunda mu ne daal naam mbir yi nag daal jafe na lool mu ne li nga xam ne moom lañ daan jaayee ñaari téeméer dalasi fi daal daanaka yokku na ba ñetti téeméer jàpp juróom benni téeméer bu ñu si ay kar waaye nag wax ne daal loolu nag du tax euh, foow nag daal ñu nag taxaw li nga xam ne moo di gi euh, surtout nag li nga xam ne moo di xale yi jëndal leen li nga xam ne moom nag daal moo di seen bugg a bugg a pour daal mun a waajal li nga xam ne moo daal xew-xew bu mag boobu ñu xamee li nga xam ne moo di daal korité moom sa daal dina nettali li nga daal gannaaw bi mu jëndee li mu war a jëndal boppam ak njobootam daanaka nag daal bésu korité dina fexe nag daal daal di bale néegam bam set wécc bu ñu sukkandiku ay kàddu si ay kàddum wax na ne leen loo xam dina koy faral di def si bés boobu mooy nag daal dem fexe nag daal euh, sàkku ji njéggal ñi nga xam ne ñoo di daal ay dëkkandooram fexe tamit togg nag lu neex a neex bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di daal ay euh, kàddu mom moom ki ñu xamee si Sali Sané kàddoom yi mu ngi ko bi nga xamee ne mu ngi seq waxtaan ak ndawal euh, QTV keneen koo xam ne moom it nag daal wax na ak ndawal QTV bi ñu xamee ko si ab sa kebe nga xam ne moom ab vendo la maanaam ab jaaykat la foofu si marché Serekunda moom nag daal dina daal dafa nag ñëw pour rek daal jaay mun a am dara waaye nag wax na daal mbir yi eh, nag yombut bu ñu sukkandeko si li nga xam ne moo di daal kàddoom gannaaw bi nga xam ne wax na ne liñ daan am si profit nag daal amatuñ ko fi mu nekk nii nag waaye nag terewul daal eh, ñu ngi nag daal am as bu ñu sukkandeko si li nga xam ne moo di daal ay nak daal kàddoom daal at yi nga xam ne moom lañ weesu daal daf daan nag daal tane waaye nag atum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 Khalil Gueye moo leen ko doon jottale si kàllaama wolof jaajëfal si seetaan bi ak déglu bi jaajëfal ñi jàppoon si xibaar yi dem mun a sotti jaa ngeen jëf